Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi téléspectateurs Salam Vision. di gërëm képp koo xam ni yaa ngi suivre nos programmes à travers un peu partout dans le monde te ñu waxtaanee tey mooy mbirum média mooy taskatu xibaar yi njiitu réew mi le président Macky conseil des ministres alarba euh, bi ñu génn mi ngi doon woo képp koo xam ni yaa ngi yëngu si mbirum taskatu xibaar président nee na li mu gis ci télé yi rajo yi. ba sur les sites internet dafa jéggi dayoo ma ni may wax suñu mbokk journalistes yi les patrons de presse na ñu gën a saytuwaat xoolaat tous les programmes des médias naam liberté d'expression mais dafa am limite euh, am na fi ñoo xam ne ñuy woote journalisme mais des na lu bare bare di attaque ay nit di euh, dugg si ay mboosalu jàmbur di weddi ay xibaar yoo xam ni dafa dëppoowul ak suñuy constitution ma ni nañu gën di góor góorgóorlu di woo képp journaliste muy presse écrite un peu partout ñu xoolaat seeni programme le président Sall nee nag euh, liberté d'expression am na Sénégal yàgg na am Sénégal mais nit ñi nañu fonk seeni kàddu nit ñi nañu xool li ñuy bind te li ñuy wax mi ngi woo tous les patrons de presse euh, les médias ñi yëngu si mbirum xibaar Euh, xibaar balaa nga koy génn danga koy danga koy saytu ba pare ba pare nga wasaare ko mais lu waaye neex bind saaga ay nit di attaque ay nit loolu dafa ñaaw si réewum démocratie au Sénégal du sumay kàddu président Sall nag nee na jox na ndigal le ministre la culture de la communication Abdoulaye Diop mu jël ay mortuwaayam euh, saytuwaat xool ba xam ñii di bind ak média yi nañu proposer ay programme yu am solo programme nag lan la rek li mën a euh, dalal xelu Sénégal yi programme dafa nekk loo xam ni mooy tax ni ñi mën seetaan télé di déglu rajo di euh, lire di euh, di gëstu di saytu loolu mooy information mais information du weeje état information du attaque nit information du du jaay sa bopp mel ni ñu si suñu bopp am na certains journalistes tey tey ñoom euh, dañu déraper dañu jéggi dayoo sur le métier man maa ko wax sama sumay kaddu la mbirum journalisme yàgg na am quatrième pouvoir c'est la presse mais bu ñu nee ñi quatrième pouvoir c'est la presse mais presse boobu fan lañ nekk tey ak ban presse ak kan moo leen ngemb ñan ñoo nekk si ginnaaw Sénégal yàgg nañ tëj yàgg nañ fi tëj yàgg nañ fi buntu xalal ay journalistes boo xoolee tey sur le plan international Il comme a combien de journalistes qui croupissent dans les prisons Demandons aujourd'hui dans certains pays africains, la liberté de la presse n'est pas respectée. kenn quel fond pourquoi Mais il y a au Sénégal, euh, dans la démocratie, la liberté d'expression. Mais li ëpp tuuru moo tax njiitu réew mi président Sall nee am na doxalin yoo xam ni daf si àndul ñu ñu ngi waat journalistes yi ñu gën a góorgóorlu et surtout dans les rédactions euh, ñu tàggat ñi xam ñu soo a dugg si métier bi bañ a bew Euh, bañ a aussi di jalgati parce que booy dugg si métier da ngay euh, côtoyer ñoo xam ni am nañu expérience ñu ngi mën a gunge euh, ba fi nga jëm nga xam ni ëllëg doo benn gàllankoor loolu mooy média mais di bind lu di saaga ay nit di état di attaqué état loolu du dëgg du yoon kooku su may la man nag askanu suñu gaal di woo aussi à tous les sénégalais ni ñu ànd ak daal que mbirum journalisme na journaliste yaa ngi si guerre yi journaliste yaa ngi couvrir des événements mais journaliste dëgg dëgg dëgg yu njëkk maa ngi faru jamono yu njëkk jamono yu Senghor ñun fekke nañ ko dañu ay journalistes yi correct ay journalistes yi civilisés par exemple je prends le cas de la RTS da def xibaar même ce bouton bu taggee sax Senghor daan woote palais ba mu woote à la RTS ne kii ban journaliste la ñu gis nga froissé rek ñu indi la ay problème da nga dégg diw à la rajo ah nga ne diw naka la kumpa la woon mythe la woon ce qu'on appelle le journalisme mais tey ci wàllu télévision yoo xam ni c'est de la pagaille des télévisions yoo xam ni euh, c'est de l'enfantillage de télévisions yoo xam ni euh, c'est c'est du n'importe quoi chacun se dit journaliste chacun se dit animateur on attaque des états on attaque le président de la république du dëgg du yoon ma ne nañu seetal bu baax lan mooy mbirum média nañu delluwaat référence am ay royukaay suñu fi nekkoon démb 1960 de très grands journalistes mais cette presse d'aujourd'hui dafa jàdd à côté su may kàddu la je pèse bien mes mots nañu gën a góorgóorlu journalisme du foyekaay c'est pas un chiffon de papier euh, journalisme boo siy dugg da ngay nekk yar ak tegin da ngay am la passion de l'information da ngay am ce qu'on appelle la détermination de l'info et de la communication mais ce que nous constatons aujourd'hui dérive dëgg ak échec sur la presse moo tax jiitu réew mi ne mi ngi woo ñëpp les patrons de presse joxe ndigal nag le ministre de la culture de la communication euh, euh, à Abdoulaye Diop de veiller scrupuleusement aux médias qui sensibilisent qui conscientisent que il qu'il est l'heure euh, de dire la vérité qu'il est l'heure également euh, les Sénégalais lan mooy presse nan lañ koy bindee nan lañ koy wasaare kooku moy message boo xam ni fi Salam Vision mon nom de lancer à tous nos amis journalistes et surtout au patron de presse jërë ngeen jëf mbokk yi